laqil lisaani waxlulan min xulu uqad wajalahu daakiran wa shaakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu daara jawa bi ñëpp ñoo ngi leen di di leen siyaara di beral nuyoog siyaar mboolem daara xikmatul yawmi ak jëpp daara juy jot xikma bi fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yow mi bi ñu leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak xam seen mbokk saalix si di leen ko defal ñoo ngi leen di joxe xikma bi nag fii ci mahad xikmatul yow mi li tarbiyal islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadul Mourtada fii ci Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 ci ñi bëgg bind seeni doom ci daara ji wala ñu bëgg am ay leeral ndax njàng mi tàmbali na. tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu jëm ci ndénkaanam yooye nga xam ne nii mësuloo dañ di ko dénk mbindeef yi ndax Serigne bi kat ci lu leer nañ la nekkoon muy ngirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci la nekkuloo woon dégg naa ci Serigne Thierno Mbacke Gelawangal mu ne sëriñ bi ci mu jëm dafa woo maam Thierno Birahim ba mu ñëw mu ne ko Thierno dama bëgg nga xam ne nit ñi fi ñëw ñëw fi indi seen bopp. ku ne ci ñoom it lay tax ñu mën a ànd wax naa la ko ah, bis penc nag kenn du ma fa gis ndax defuma sama boroom wala ma wax ko lu jar ma ñëw fa ana li tax ma mën a ànd ak ku ne ci ñoom digal naa leen gëm yàlla ak ragal yàlla ak topp yàlla daal ne ku ku gëm yàlla dangay ngay nanguy dogalam ku ragul ku ragal yàlla dangay bàyyi ay tereem kuy topp yàlla da ngay jëfee ndigalam nekku ñett yi ma war sama diggante ak sama borom def naa ko ñett yi ma war sama digg ak mbindeef yi def naa ko ana ñetti yi ma war sama digg sama borom mooy lu mu mas a digle def naa ko te mosuma def lu muy tere te lu mu neex na ma ana ñett yi sama digg ak mbindeef yi mooy yan mosuma tooñ kenn ci ñoom te ku ma ca mas a tooñ jéggal naa ko te lu ma am bokk naa ko ñoom waaye nekk ci la la neex di wax ne ëllëg yowmal ëllëg bu may dugg sama bàmmeel danaa dajeeg Ahmadu nee na loolu de diguma diguma ko kenn diguma ko kenn mas naa woote itam ci njaareem ba ñu bari ñëw mu ne leen damaa bëgg ngeen xam ne man de sama borom jox na ma dénk na ma mbalaanum sutura ci àdduna moo xam ne nii ku ci nekk ku fi nekk mën nga cee sàngu waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp mas naa waxit ne àdduna ak àllaaxira day dañoo jege lool te wóote lool ndax àdduna de ku fi nekk nu mu mën a toll boo ko bëggee gis mën ngaa fexe ba gis ko ëllëg nag ña bokkoon lu ñuy def rek ñooy gisante kon mbokk yi rikk ndénkaani sëriñ Tuubaa yi nga xam ne nii ndénkaan yu leer nañ la dara lu dara lu lëndam amu ci nañ doon ay nit ñun tey jëfandikoo sunuy xel te di ko topp sunu kemtulaay kattan di ko def te bañ a topp sunuy njort sëriñ Malick Bassine kat dafa waxoon ne nangeen ngeen rafet njort bu baax a baax a baax a baax te bu leen ñaaw njortu bu leen topp njort ñu ne ko ana lan mooy rafet njortu mu ne mooy di def lu baax te yaakaar lu baax ci yàlla ñu ne ko ana luy ñaaw njortu mu ne mooy di def lu baax di séentub safaan ci yàlla ñu ne ko ana topp njortu mu ne mooy di def ab safaan di séentu lu baax ci yàlla waaw nañ doon ay nit tey jëfandikoo sunuy xel te xam ne sëriñ tubaakat kat na ak nun defal na lu ne féete nañu fu ne bu fekkoon ne day du wàllu diine sax sëriñ Tuubaa lañ koy war a delloo njukkal mooy lum bëgg ñu bëggale ko ndax féete nañu fu ko jar rawatina nag ba nga xam ne ni lam ñu bëggal lépp lanu yàlla bëggal la lam ñu bañal lanu yàlla bañal la te lañu yàlla bëggal sunu njariñ la lam ñu bañal tamit sunuy lor la kon nag lépp dafay dellu siwaat ci ñun waaye dara du ci njariñul sunu borom dara du ci njariñul Sëñ Tuubaa sunu njariñ la ñun di sunu lor kon nañ koy jëfandikoo te amam xel te yeewu ñoo ngi jaajëfal mbokki taalibe yépp tey soññewaat rawatina ñi bokk ci mahad bi ñi bokk ci eh, association Hikmatul mi ñu eh, gën a jàpp ci liggéey bi nga xam ne ne tàmbali na te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir te ñu am ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fa yàgg te wér eh, ñi jot am carte membre ñoo ngi leen di soññu ci at yi joxe weer mu jëm ci luy dundal daara yi ñi nga xam ne ni itam ñoo ngi ci daara yi te jotuñoo am carte membre it ñoo ngi leen ci soññ di leen ko ñaan ko ci mën a am carte membre nga bokk ci ndax liggéey bi liggéeyub lislaam la liggéeyub Sëriñ Tuubaa la te it kenn ku nekk ci ñun eh, la muy xante mooy liggéeyal yàlla ba bu ëllëgee eh, mu jural ko aw yiw jural ko itam tuyaabo kenn ku nekk ci ñun it eh, ñun taalibe yi la muy yitt woo mooy am ngërëmul sëñ Tuubaa te ngërëmul sëñ Tuubaa de mi ngi ci alquran